bës bi réewum Sénégal jagleel lépp lu jëm ci jàngoroy roñoo nag daal nañu amal li nga xam ne moo di ndortele ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ci fukki fan ak benn ci weeru mars bi ñu nekk jàngoroy roñoo nag nekk jàngoro joo xam ne nii lu nal askan wi la rawat na ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi ju Touba néphrologue bi nga xam ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllum rein ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba di fësal thème bi nga xam ne ni jël nañu ko ci bile semaine bile semaine d'action semaine boo xamee ni altine la ba ajuma lépp loo xam ni jàngoro roñoo rek la ñuy wax mais euh, plus particulièrement le jeudi mooy euh, journée mondiale du rein bi dañ koy jagleel benn gox nga xam ni ñëpp foofu la ñuy dem mooy euh, dakaar Pikine pourquoi l'hôpital de de Pikine parce que ñoom moom tamit l'hôpital pikin dañuy inauguré jour boobu seen centre de dialyse bu bees bi donc thème journée bi mooy les reins en bonne santé partout et pour tous rein en bonne santé partout et pour tous si wolof mooy roñoo fépp ak lépp donc qu'est-ce dire donc su dee bëgg nañ ko euh, traduire mooy képp koo xamee ni am nga problème mu roñoo da ngaa war a am benn béréb boo xam ne dañ nga euh, dañ laa war a faj donc donc la santé rénale doit être accessible partout. ngir am solo gurin am solo waaye tam jafe-jafe yi nga xam ne ñu am jàngoro roñoo ñu ngi ko dund tax na ki nga xam ne moom moo di président dialysé yi di Moustapha di fësal jamono ji semaine bi naka lañ ci war a ñaaxee askan wi ba ñu gën a mën a fagaru ci jàngoro ji di insuffisance rénale lekk yi nga xam ne moo leen ko doon jox ñu ngi koy moytu ngir lan association Mao bi wàcc ci terrain bi di leen sensibiliser di leen wax moytu leen médicament de la rue yi moytu leen maam man yi moytu leen vraiment tamit lekkin boo xam bi vraiment bouillon yeeg mel noonu dana ca di bari ak tamit di lekk ay graisse di lekk am xorom doo dem kër docteur ñu xool sa tension fu mu toll wala sa diabète fu mu toll loolu tamit lu mën a joxe bu bi. Touba nekk dëkk bu spécial ba tax nag ab mouvement juddu fii ngir di fagaru waaye itam ngir di ñaax askan wi ngir ñu gën a mën a saytu seen ay rein waaye itam naka la ñuy def bay mën a am ndimbal su jàngoro ji dikkee dal ci seen kaw bile mouvement nag daal di juddu ngir jàppale ñi nga xam ne ni ñoom ñoo amee insuffisance rénale mouvement Maawa nag ki nga xam ne moom mooy wax ci seen kàddu di ki nga xam ne moom moo di Mandela Thiam di président mouvement boobule di fësal ana lan moo tax a jóg boobule mouvement. Ah, mouvement ànd wàllu askan nag. dafa nekk mbooloo moo xam ni ay taalibe sëriñ Touba yu dëkk fii ci dëkk bi ñoom ñoo fëskee ne boole seen am-am boole seen doole boole seen jot jëmale ko ci liggéeyal sëñ bi waaye bay seen waaru bopp di ko bay ci ñi nga xam ne dañoo tawat. feebaru dañoo c'est une maladie sournoise maanaam feebar la boo xam ne day yoot ba tëral la comme que nag feebar la bu yoot ba tëral la ni max di def bant noonu lay def nit. kon nekk na tawat joo xam ne lenn dong mooñ ci mën a dimbali mooy di jegewee docteur yi di saytu suñu wér gu yaram balaa ñu cay yóbbu. ak lu ñu ci mënti doon jàngoro rañoo nekk jàngoro joo xam ne sonal askan wi la at mu jot ay junni junni doomu aadama di ñàkk seen bakkan ñenn itam dund ci ay jafe-jafe rawatina dëkk bu sell bi di Touba bi nga xam ne ni liste d'attente bi bis yàlla sàkk day gën di yokku waaye jamono ji nag mi ngi mel ne ay saafaraan ciy jokku ci li nga xam ne moom mu tabax ab centre de dialyse bu yees boo xam ne nii xali général di mu dugal na ci loxoom waaye itam ay création ay mouvement yoo xam ne nii ñu ngi ñaax bu baax a baax askan wi ngir ñu gën a mën a faga feebaru ci jàngoro ji